ndokkeel di ndokkeel suñu bopp di wax pour suñu borom bi di jumaatullah di leen fàttaliwaat di fàttali suñu bopp ne noonu ak yéen ba tey ci fas mel ne lu bari jaaroon na ci waxoon nañ ne fas mooy li dagal ba noppi yàlla lo li dagal ba noppi yàlla dugg ko xadis ba leeral ko ab xabul xalaali ilallahi ak tala ñu waxoon ne fas bala koo nit a mën a def dafay doon soxnaam dafay toll ci barab boo xam ne mën naa julli mën naa woor mën naa def yooyu te laa boogee yàlla la dogal jaxasoo ci ak moom ñu waxoon ne yi ku def dafa soo ba fase jabaram ci jabaram mun nga julli moo xam dafa nekk ci bés wala dafa gis baaxu jigéen rek kooku teewul fase ma day wéy waaye teewul yi dafay am bakkaar buy wax diggante ba boromam tabaraka wa taala ñu waxoon ni keroog ne maanaam jigéen ñi nga xam ne sañes ni leen a passé ci état bu mën a doon ñeent lañ ñu waxoon ba ci dëkk mooy jigéen bi nga xam ne léegi maanaam jotagul gàpp mu kànn waxoon nañ leen fii ne am na ci suñu mi ñoo xam ne bu ñu ngéntee rek dañu daal di fas sëy bi kon sëy boobee teewul dafay taxaw ci diine kon kookee ñu pasal biir boobee bu léegi ba demee ba fekk te xëy na bu bëgg koo fase sañ na koo fase ndax kooka àggagul ci fuñ naan mën naa julli wala a daw mu tànn bu benn ñaareel ñu waxoon ne ki nga xam ne dafa nekk ci état ménopause kooku ba tey saa su neexee borom këram mu fase ko ndax li lislaam di dabb wala li lislaam di tere ci loolu génn na ci soxna si ndax soxna si wala gis baax te soxna soo si waxoon na leen keroog ne ci ay weer lay iddaw waaye bu iddawul ci ay laab ndax man kooka maanaam mu ngi ci état beneen ba ci toppam muy ñaar ñetteel bi mooy ki nga xam ne may nañ ko soxna te yàlla dogal na jotee guñu muy kon wéetagul kooku yi saa su ko soobee moo xam soxna sax ñun mën naa julli wala mën na julli waaye gannaaw daal ñoom ñaar seq buñ dara kooku saa su ko neexee mu fàtte soxla la kooku mooy ñetteel ñeenteel bi te mooy ba ca mujj mooy ki nga xam ne léegi soxnaa ko ba wala aw doon moo xam état bu mën a toll un mois deux mois wala lu ko wala lu koy yëg kooku yi sañ naa fase soxnaam ci a bu ko neexee ngir ne la lislaam doon ci loola leer na ngir ne ëmb bii mi ngi jóge ci borom kër bi ñoo xam ne ne keroog loolu mooy ñeent yi nga xam ne nit ki sañ na cee fase soxnaam ci état bu mu mën a doon ci jotagul gàpp mu gàllam ki nekk ci état bi nag boobu ki nga xam ne jotagul ak soxnaam soosee ak ki nga xam ne soxnaam dafa war na aloon waaye yu dul kaa yi rek ko ci fase soxna kon lay maanaam da nga am bàkkaar waaye teewul it nag fase ma day wéy kon nag mbir mi passé moom yéen nga xam ne moom lañ doon wax loolu ana lan moo koy firndeel ci diine ndax day dañuy jékki-jékki rek ne jeex na déedéet dafay am ay procédure yu muy jaar borom kër bi nga xam ne moom la yàlla jox kàddu bu jàkkaarloo soxna ne ko passé naa la loolu ci sunu aada ci sunu waxi wala xam nañ li muy tekki mooy doo la tusal doo la tusal soxna génn sunu muy fàttali wala may naa la sa baat loolu ba tey ci sunu biir diine wala ak sunu aada loolu ba tey la muy fekk la kon mooy maanaam génn sama kër doon sama soxla wala nga xam ne daf ne ko maanaam war naa laa passé war naa laa passé wala passé la day war na ma war naa laa passé wala passé la war na ma li yëpp ay baat la yoo xam ne bu jàkkaarloo sa soxna wax ko te it maanaam loola am passé lay tudd bu ko defee passé moom yi waxoon nañ leen benn lay doon dal xatum benn marché lay doon bu fekkee ne nag kooka am na mën-mënu ba yokk ca li ca bokkul nag bu waa loolay day wéy waaye bu tey dana am bàkkaar ndax léegi waxoon nañ leen fi ne maanaam fasem sunna daal benn yoon lay doon benn lañ koy compter waaye bu yéene ëpp loolu yi loolu day am waaye bu tey ba tey da nga am sa bàkkaar boo xam ne yàlla sa borom bi na koy di digal kon loolu mooy baat yi nga xam ne dafa wér fase naa la may na la sabab ak yu mel ne yooyu ndax fii l'islam dafay compté ci aar bu fekkee dafa ay baatare yu ñuy jëfandikoo te yooyu di ko jëfandikoo ci beneen sens boo xam ne kenn mii ko di fasel loolu ñu waa l'islam du ko considéré waaye baat yi nga xam moo tax ma ne leen te su ma laalee wala fase naa yooyu maanaam kenn du ci tàntam ne ci loolu am fàttalee tegtale ci suñu wax wolof yi nga xam ne kon moom la ñuy dund si ak suñu aada wolof moo tax ñu wax baat bi am na nag ay baat yoo xam ne dafay tànkee dal nga xam ne kooka bu nga ci jubloo bu doon am passé waaye kooka bu nga ci jublu bu doon am passé loolu mooy li ñoo ay ak kinaaya yooyu ñaari xaaj la am na tànkee dal boo xam ne dafay xaw a leer am na làkkatal boo xam ne dafay nëbb ne bi nëbb nag mooy li nga lii mooy li mën nañ koo xaaj ci ñetti xaaj mooy yi nga ne dafa am ne taxawaayu maanaam wala boobu maanaam pase xam ne ki ne may naa la sa baat wala loola pase la ci lool waaye nag am na baat bu moom ne kii yaa fi pase ko yaa fi pase ko ku ko wax sa soxla day léegi ay ba xam léegi bu dee am passé passé lay doon bu dee ak yaa passé boobu damay tax bu baax léegi loolu baax la boo xam ne nii ci suñu aada wala daaw ñu mën jëfandikoo xëy na ko wala ci yenn gox yi jublu ci am passé waaye su fekkee ak gox danañ jëfandikoo yaa passé boobu jublu ci am passé ku ko wax sa soxna léegi maanaam passé lay daal di doon ngir loolee maanaam a te fii islam dafay bàyyi xel bu baax a baax day ma wax beneen xaar bi mooy yaa yaa yor sa jëndal buy responsabilité loolu yi ku ko wax te jur ba ca passé soxnaam bu waaye ba tey passé lay doon bu dee bu dul ko jëlee bu waa du ko kon waaye kooku nag yàlla mooy alxaakim mooy kii àtte ndax yàlla moom kenn mënu ko war a wax mën ngaa déglu ba siis yi mën ngaa déglu ba imaam yi mën ngaa déglu ba témoignage waaye yàlla moom doo mën jëm doo xam ne ñu ngi déglu ba lay doon. naka noonu wala beneen baat moo xam ne nii kii dafa wax soxnaam ne ko may ma ndox wala lekkal wala naan yooyu xam nga ne su dee aada yi wala. maanaam ñun kenn du ko dégg ci ne passé bu ñu nàkkante la wala passé bu ñu maanaam mu wér waaye nag waaye su ko laajee waaw yow boo ma leen toogee ba léegi yaa ngi wax ni may mu naan du ma naan du ma lekk du ma taxaw ba ñu jublu mu ne xanaa boo amul dégg kay ne kon dama ko passé bu baax kon yéene jooju nga xam ne moom la waaj a laloo ci lekk wala naan wala demal wala jubal fii bu baax léegi yéene jooju moom la islam am na yeneen yoo xam ne ay dàkkental yu feeñ la yoo xam ne dafay taxaw taxawaayu fas dàkkental yu feeñ yi moo gën a maanaam mu gën a ëpp dégg ndax dafay taxaw taxawaayu fas mu nu mel ne ci ci waxoon soxnaam ne ko dooratul man di yow wa dooratul man di yow wala dog nga ci man kat ci xam nga baaxul kat ci ci suñu wala xam nañu ne lu soppaloo woon la amul mu dagg diggante bi kat bi am ko kon la muy tegtale kon mooy maanaam doole ko sama soxna loolu nag ñetti passé lay taxaw ci islam ci la soxnaam maanaam doom nga ci man kat ci wala doonatul man di yow doonatul man di yow ko nekk nekk xam nga la muy tegtale mooy kon maanaam loolu passé mu mu ñu dàkkante la waaye dàkkante bu leer nañu taxawaayu ñetti passé rek lay doon waaye am ca bàkkaar te ba nu ko ndaw sax daga naa xaw mu doon ak baax a sëy kon mu tax moo tax bàyyi mel noonu ndax ab sëy du lu loola tax ñu ne kafak sëy ak kafak fase lu ci mën a doon lay dëggee doon kafak fase ak kafak sëy ak fase lu ci mën a mën a doon rek maanaam ak dëggee doon loolu wala mooy la ñu yooyu wala ki nga xam ne dafa wax soxnaam ne ko fu la neex dem picc na moo xam ne lii bëgg nga fu la neex dem fu la neex yenn fu la neex fanaan kii ne soxnaam fu la neex yenn fu la neex fanaan kon mooy gënatul wala boog amatul wala boog fasul ko yéenee gàddoo ci benn bés xoolaat xalaat bi def ci soxnaam soosu kon loolu it ba tey ñetti façon lay taxaw bala koo daganaa moom ki wax loolu yi soxnaam faaw wax la saw ji ak bàkkaaram ba nga xam ne diggante ba borom la kon duuf ko war na ko maanaam ni suñu borom jënd ko kon loolu mooy dàkkantal yi nga xam ne kon yi gën a kii la ki nga xam ne it nee na soxnaam yow daal yaa ngi mën di yéene yam ci man wala yaa ngi deret yéene yam ci man wala yaa ngi sàngara yéene yam ci man wala boog yaa ngi mbaam fukk yéene yam ci man xam nga yéen fii ak yeneen dul ñoom yi nga xam ne dafa aram ci ak julli ku bëgg lu róole ko sa soxna batale yoon ndax ak julli du du naan deret ak julli du naan sàngara ak julli du lekk mbaam fukk naka noonu ba tey kon ku wax na soxnaam ne ko yaag sàngara yéen a yem ci man ñetti i lay o wala koo na nga naan bande saw yi ak bàkkaaram bi nga xam ne ko dafa war a tuub diggante ma borom tabaraka wa taala beneen bi ci desaat mooy ki nga xam ne léegi def na léegi soxnaam demal demal bu ko defee baalu demal jooju xam ne ne bu mu passé lay jël ay bagages am dem waaye baalu demal li ko tey ma des naa mën naa nekk lu bari bari demal jënd demal ci biir sàngam ne ko demal demal yu dul jeex yoo xam ne nii lu la neex nga teg ko ca jël la mën a mën a composé ak maanaam baat bu nga teg wane léegi lan mooy atte bu waaw lii ne di mooy atte loolu dugg ci baatu demal bi mu ne ko dee daa amul dégg waaye man dama ne ko war demal jël na li moom wala demal ma ca sa yaay wala demal ma ca sa baay wala demal ma ca naan moom naan mu waaye loolu moom maanaam xëy na ay dirim la lay doon te waaye waaye yàlla moom kenn du ko dirim la waaye su fekkee ne laaj nañ ko mu ne kon léegi demal li ma ci jublu xam nga léegi bu ko dee nekk ak moom boo mu mën a ko demal la ma ci jublu mooy defal suñu sa seen kër kon loolu day taxaw taxawaayu fas kon daal li li tënk wax ci ca gàttal ba mooy bépp baat boo xam ne nii wuute naa baat yi ñu jëlal li suma maam ndax fii l'islam dafay boole ci aar ñun wolof dañuy wax ne passé naa la may na la sa baax demal seen kër boo ko yem na yàlla ko sa bopp yooyu yëpp bu fekkente ne ci sunu langue wala lan bu mën a doon suñu langue réew yi loolu lay tegtalee passé moom ba day béy su fekkente ne baax na yu juróom moom tegu ko bu wax léegi ca du jëfandikoo yooyu ci passé dañuy laaj ka ko wax loo ci jublu su ne passé laa ci jublu muy passé noonu gan su ne jublu ma koy passé ñu ne ko loolu du jublu passé ndax kon yàlla yéene di rek di topp yàlla yàlla sàmm yàlla yàlla sàmmal suñu bopp sàmmal suñu diine sàmmal ñu njaboot yi kii ba ñu la